mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi war a jël tey aya cent quatre-vingt-un ci suratu ali imran suñu borom di waxee ni laqad samia allahu qawla alladina qaalu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam di fas yéene jàng ab téeréem loole nekk ak jaamu yàlla gu màgg gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan bégal xeet bi xeet boobu nga xam ne tey ñi ngi dox ay deux cent kilomètres ay trois cent kilomètres bal di jóge réew ba réew ñàkk ay millions ci ay daje yoo xamee ne nii yàlla joxewu ci ndigal yonent bi joxewu ci ndigal loole ak a neexoon ñu xamoon fa nga xam ne fa la leen seen borom woo suñu borom mi ngi ñu woo ci ab téeréem téere boobee ñu jàng ko jéem koo dégg jéem koo dund jéem caa woote loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni benn mbooloo du ñu daje mukk ci néegu bu yàlla ba dafa jàng téere bu yàlla ba seen biir lu dal mu wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaaka am ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jotaay bi mboolem ñi nga xam ne nii it yàlla subhanahu wa taala teg na ci ñoom loo xam ni mënuñu koo teewe waaye seen xol mi nga ànd ak ñoom it ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala boole ñu ñoom ak ñi nga xam ne ñooñu ñoo leen koy jottali dox suñu diggante ak ñoom ci site yi jàkka jeek télévision islam tv bi ak yeneen ñu koy jottali ci ñoom ñu ngi ñaan yal na yàlla boole ñu nangul xam naa bokk na ci ñooñu rek koo xamee ne nii benn ci ndawi jàkka ji ñu koy wax Mouhamad Thiam mi ngi doon dundi Italie daan yàkkamti lool dars yi dugg ci groupe bi ba mu jël ko tasaare ko ci ñam ko bokkal yàlla dafa dogal mu faatu koor baa ngi nii di ñëw war na yegg si fii tey xam naa dix heures ci guddi incha allah ni nga ko war a waajal suba fii ci onze heures ñu ñaan borom bi jàll wa ala yal na ko yàlla teeroo njëggal ak yërmande yal na ko defal àjjana wàcc waayam defal ñu ko te defal ko bépp julit kon incha allah tey jii mooy juróom-ñeenteelu fan ci weeru rajab sun ma maam yi di ko tuddee la nga xam ne mooy ndeyu koor mi ngi noonu di tombeek le premier le day non premier février ah am deux waaw tey de 10 rajab kon du tombeeg lan février mooy premier février non kon ñu ngi nekk 10 rajab du tombeeg premier février ci 2023 2023 incha allah kon Cheikh Ousmane bu pare mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk
لقد سمع الله قول الذين قالوا
بارك الله فيكم أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني لقد سمع الله ويرنني دي يلا دجنا قول الذين قالوا إن الله فقير ñoo kaddug ña nga xam ne dañu naan yàlla day dafa aajowoo wa nahnu al aghniya ñun nag ñun ñooy ñëwoomle yàlla faqir la ñun ñooy ñëwoomle sa naktubu ma qaalu daan bind loolee nga xam ne wax nañ ko wa qatlahum al anbiyaa bi ghayri haqq ak rey gan rayoon yonent ya te teguñu ko ci dëgg wa naqulu zuqu azab alxariq ñu ne leen mos leen waay mbugal mii di lakkaate dalika bima qaddamat aydikum loolu nekk na ñeel leen ca lam jiitaloon seen loxo ya wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid te yàlla day nekkul mukk di aji tooñ ay jaamam alladina qaalu ñoo ñi nga xam ne ña nga naan inna allaha ahida ilayna ñun de yàlla dige woon ne jëm ci ñun allah nu'mina li rasul ne bu ñu gëm mukk kuy woote yonent di ñal yonent xatta yatiyana bi qurbaan lu dul mu indil ñu sarax boo xam ne da koy génne taakuluhu naar mu ñëw lekk ko sawara bu jóge asamaan qul qad jaakum rusulu min qabli bil bayinat neel moom moom yéen day dikkaloon na leen ay yenent yu ma jiitu woon ci lay yu leer wa bi lazi qultum ak loolu nga xam ne yéen ngi koy wax falima qataltumuhum ma lu taxoon ngeen rey leen nag in kuntum sadiqin nem nekkoon ngeen di aji dëggu fa in kazzabuuk xamal ne buñ la weddee faqad kuzziba rusulu min qablik weddi woon nañ ay yenent yu la jiitu woon jaa'u bil bayyinaat indi woon nañ ay lay yu leer wa zubur indi woon nañ ay téere zubur mooy téere boo xam ni dafay am yuy xuppaate ak yuy yëngal ay xol wal kitaabil munir ak téere boo xam ni téere bu leer la cay leeral mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax fii ñu yées ci ay jaamam yahud yu bon yi nga xam ne ñooy almaghdubi alayhim julit bés bu nekk lum néew néew fukki yoon ak juróom ñaar da nga taxaw ci kanamu yàlla ñaan yàlla mu musal la ngay jaar ci seen yoon gayri almaghdubi alayhim mi ngi noonu yahud yooyu bokk na luñ doon wax bi ñu déggee yàlla di woote ana kuy lebal yàlla woote boobu mu woote woon ca mbooli mi térim yi ñun ay yonent man yuqridu allaha qardan xasana ana koy lebal yàlla bor bu baax te lan mooy lebal yàlla mooy jël ci li la yàlla wërsëgal delloo ko ci jaami yàlla yi seen beew gañ beewoon ak kàccorte gañu nekkoon ñu ne ah yàlla day pauvre la yàlla pauvre la gisoo mi ngi naan nañ ko leb ñun ñi ñooy ñu woom le jàpp ne lañ yor ñoo ko may seen bopp comme ne ko xaaroona doon gisee borom bi nag subhanahu wa taala mu ne dégg na seen wax joojee nga la wayu julit loolu it bàyyi ko xel bu baax bokk ñu luy différence jaami yàlla yi jaam bi nga xam ne xam na ne lépp lu muy wax yàlla nga koy dégg lépp lu muy wax yàlla nga koy gis ak jaam bi nga xam ne daa fàtte boroomam nasullaha fa nasiyahum fàtte boroomam nga la wayu julit xamal ni sa borom yàlla boobu dara du ko ump in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa soo waxee ci kaw dégg na soo waxee ci suuf dégg na soo nëbbee sa xol dégg na loolu it moo tax ba lu la jaaxal ñaan ko ko heure boo jaaxee woo ko foo ko woo dégg na la foo ko ñaane dégg na la jalla wa ala mi ngi noonu borom boobu moo ñuy wax ci téeréem ne ya ayuha nnas antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu alhamid e yéen nit ñi yéen ñépp aajowoo yàlla doomu aadama du dund ba am autonomie abadan président général milliardaire ku mën a doon foo toll yaa ngi aajowoo sa borom looloo tax deel ñaan yàlla ci lu mën a nekk yeneen tubaale sa mën a ñaan leen yàlla sax buum gi ngeen di takk seen seen dàll te xam ne lépp ci moom la aju borom boobu nag ne wax ju ñaaw jooju day daañ ko bind na am daañ ko bind ndax buur lépp lum naan dinaa ko def it xam nañ ne daa am armée bu ko koy defal moo tax suñu borom yàlla boole nañu ak ay jaamam muy ay malaaka yoo xam ne du ni doomu aadama bu nekk da koo booleeg ñaari malaaka rek na ko demal déedéet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bépp jaamu yàlla bu su bu ne yàlla dana wàcc ci moom ñeenti malaaka ñeent ñaar ñoo ñëw fajar nekk ak moom ba tàkkusaan lépp lu mu wax ci lu baax jëf ci lu baax ñu bind lu mu wax ci lu bon jëf ci lu bon ñu bind ba tàkkusaanee suñu borom yéege leen wàcce yeneen ñaar ñu bees ñu fanaan ak yow lépp ñu ngi koy bind naktubu ma qaalu loolu it mbokk ak tëkku la bu yàlla tëkkuwaate wax ju bon ji ngeen wax dégg naa ko bind naa ko muy wane ne loolu kenn du ko fàtte ni nga noonu te it jullit xamal ne su jëf noonu la mel mboolem loo mës a jëfal yàlla boo ko fàtte it yàlla moom fàttewu ko mi ngi lay xaar borom bi mu ne danaa ca boole rey gan doon rey yonent yi te teguñu ko ci dëgg moo ko bani israil yahudi bon yooyee suñu borom nee na kullama jaahum rasulum bima la tahwa anfusu anfu anfusuhum fariqan kazabu fariqan yaqtuluun heure boo xamee ne nii yonent dëkkal na leen bu waxee lu leen neexul ñenn ña ñu rey leen ñenn ñi ñu weddi leen kenn xamul bani israil ñaata lañu rey ci ay yonent loolu it mbokk moo lay jàngal ki attana rey yonent ndax duural ko dina ko def problème la wallahi looloo tax ngeen dégg lenn ci seen yonent ñu tuumal leen ci war guñ daan woor ci njaaloo guñ daan woor njaaloo ci nangam guñ daan def loolee nag mbokk julit julit day bàyyi xel ne ñaatoon na rey yonent yàlla wax ci ñoom lu ñaaw du problème moo tax suñu borom ne yaa ayuha allazina amanu la takunu ka allazina azaw muusa fa barra'ahu allahu bima qaalu e yéen julit ñi bu leen mel ni ña doon tuumaal yonent yàlla muusa yàlla muccal ko ci lañ doon wax jiiñ nañ na ko moo rey haarun jiiñ nañ na ko da ko da doon njaaloo lu ne jiñ na ko yonent yàlla Muusa loolu kon ab julitit da ko war a xam moo tax ba wax ju bon ju ñaaw ci fi amoon ci weer yi passé ab doomu julit taxaw di tuumaal ay yonent yàlla yu kawe yàlla tudd ci alquran di wax naan ay mbon goo xam ne dañ koo nekke woon loolu yal na yàlla musul ñu ci ay wax joojee yàlla dégg na ko ci yàlla bind na ko mi nga noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñooñu de buñ ñëwee bokk na la leen di yàlla di wax mos leen mbëggalum xariq naam dugg leen ngeen mos ko te mbokk adduna da ngay gis ne boo nekkee ci mbugal bu yàggee rek da ngay dem dans le coma dootoo amati yëg-yëg amma alaxira suñu borom règle ba mu fa def ki dugg sawara du dee gannaaw ba der boobee di am yéeg heure bu soppee ko yàlla indi beneen mbugal ma day sax en permanence ci ñoom du dakk guddi du dakk bëccëg ba ñoom sax daañ woo ya malik udu lana rabbak yuxaffif anna yawman min al azab e yow malik kilifa gardien sawar yi e waaye ndax dooñu ñaanal sa borom benn bis boog benn bis ñu nampalu ko ci mbugal mi waaye kenn du leen nangul loolu yal na yàlla musul ñu ca borom boobu nag ni lii day yéena ko yeyoo ngir li seen loxo yi jiitaloon yéena ko liggéey indi ko muy sawara si yàlla subhanahu wa taala mu ne duma tooñ samay jaam mbokk yàlla lu ko neex def waaye du ñëw mukk yowmal qiyaama mu jël nit dugal sawara lu dul ne ba muy dund daa defoon lu yeyoo mu tabbi sawara mi ngi noonu lii yéena ko jiitaloon loolu it moo tax ba ku nekk ci yéen war naa xool lan lay jiital suba mi ngi noonu yaa ayuha allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadin ku nekk ci war naa xool bis boo xëyee yaa ngi jëf jëf daa ngi lay xaar àllaaxira loo mën a wax mi ngi lay xaar àllaaxira ngal la waaye loolee bàyyi ci xel borom bi it mu ne man duma tooñ samay jaam nee na ay sama jaam xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazaalamu ay waay xam leen ne araamal naa sama bopp di tooñ doonte ne mbokk yàlla bu ñu leen waa asamaan ak suuf tàbbal sawara yi tooñu leen ndax moo leen moom waaye nag lay nuru ak tooñ du ko def te mooy nit koo xam ne kenn avertiru ko kenn mus koo waar ci diine yàlla du ko mbugal koo xam ne deful lu yey ñu mbugal ko yàlla du ko mbugal mi ngi noonu waaye it moytale nit tooñante ci seen biir bokk na yàlla lu mu bañ ci ay jaamam ab jaam di tooñ mbo moroomu jaamam ndax loolee day mën na laa jural nga dem sawara yowm alqiyama comme na ko suñuy yonente waxee ci hadisul muflis bu gudd boobee borom bi dolli ci ne ñoom day ñu ngi naan ñun yàlla daa diggante ak ñun inna allaha ahida ilayna yàlla diggante ak ñun nee na bala ngeen a ngëm benn yonent na génne sarax safara jóge ko asamaan lakk ko nii doog a xam yàlla ko yónni naam loolu yàlla defaloon na ko yonent yi jiitu woon waaye suñu borom mu ne waaw lu tax ay yonent dikkaloon leen muy seen maam ya ci lay yu leer nañ ni ak loolu ngeen di wax teewul ngeen rey leen su dee ne yéen jàpp ngeen loolu mooy tax ngeen gëm lu taxoon seen maam ya rey yonent yi ci gëmuñu woon allahuma loolu mbokk mi ngi noonu doonte ni suñu borom mi ngi naan attaxastum inda allahi ahadan am taquluuna ala allahi ma la taalamuun li wér mooy digg yooyu ñu wax yàlla subhanahu wa taala waxantewu ko ak ñoom te it mbokk bokk na lu ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo suñu jamono tey booy déglu rajo ak télévision yi mooy sëñ diw ba mu ne yàlla yàlla ne ko ba mu ne yàlla yàlla ne ko ba mu ne yonenti yàlla bi kaza wa kaza loolee mbokk di duural yàlla ay dig yoo xam ne yàlla mosu koo dige ak i jaamam borom boobu nag mi ngi noonu kenn la waxal ci ay jaamam mooy ñoom tànnoon def leen ay yonent waaye keneen ku dul yonent yàlla du ko jox benn ndigal bu muy jottali jaay mi yàlla yi déedéet loolu mbokk munte nekk abadan borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne day ñooñu ngeen xam ne rey ngeen leen ci ay yonent lu tax ngeen leen doon rey te moo ko xam leen ne yonent yàlla Zakariya dañ koo rey yonent yàlla Yaxya dañ koo rey yonent yàlla Isa dañ ko doon bëgg a rey yàlla muccal ko bal yonent yàlla Muhammad dañ ko doon bëgg a rey yàlla muccal ko ci keroog waa Bani Nadir ba mu demee ci ñoom fekk amoon nañu ay pacte mu ay déggoo gu ñu déggoo ne Madina ku ci am problème sa morom jàppale la benn julit rey ñaari yéeféer ñu am doon kóllëre kon ñu war faa yóbbu ñaari téeméeri gileem yonent bi dem di leen laaj ndimbal ñu ne awaay occasion ne mi ngi nii ana ku koy jaari gannaaw rek dóor ko benn roche mu dee benn yoon yàlla xamal ko loolu te la ñuy génne waa bani nadir te la nga xamee ni nii mooy madina moom ngay jàng ci suratul xashr axraja lazina kafaru min ahli kitab li awalil xashr waaye gannaaw loolu itamit xatta yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu naan pexe yahud yu bon yooye bokk na fii yàlla jaareel ak faatoom keroog bu ñu ubbee xaybar benn jigéen dafa ñëw may ko benn cadeau mi ngi noonu benn la nga xam ne mooy yelu xar yu jëm ca pooj ba yonent bi bëggoon ko lool bi ko yonent bi jëlee mu daal di koy mat suñu borom yàlla xamal ko ne lii dañ koo empoisonné mu woo soxna si ne ko waaw yow lii nga ma jox ni da nga koo empoisonné mu ne ko wax nga dëgg de ndax damaa jàpp ne su dee yonent nga loolu du la mën a lor su dee doo yonent nag nga dee ñu noppalu ci yow yonent bi alayhi salaam waxu ko dara waaye am kenn ci sahaaba yi ku ci lekkoon daal di faatu looloo tax yonent bi neen ñu rey ko mais loolu topp na ko xaybar ci juróom benneelu at ba la woon bañ demee ba ci atum fukkeel ma ci la faatu mi ngi doon wax ne matt gi mattoon yàpp xaybar ba ba tey mi ngi nekk ci putam gi mi ngi mel ne putam gi mi ngi bëgg a xotteeku sallallahu alayhi wa sallam ci pexe yi yahud yu bon yooyee borom boobu nag subhanahu wa taala ni yonent yi ñëwoon nañ indi lay yu leer indi ay téere indi luy xuppaate teewul ngeen rey leen loolu it mu lay wan ne nga la waay yow mi nga xam ne yaay ñëw gannaaw yonent di waaraate ca la yonent yi nekkoon nga waxoo pare ñu ne da nga da ngay fen waxoo pare ñu ne da ngeen ëppal waxoo pare ñu ne da ngeen réer nga la waay wax yooyu bu mu la déranger ndax loo digg rek yonent yi la jiitu digg woon nañ lu ko gën a garaaw foofu te say grade yéegul ci seeni grade yal na yàlla may ñu mën gu rafet mi ngi noonu Cheikh Ousmane
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne kullu nafsin zaiqatul maut bépp bakkan day dana masa mos de wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama daan leen matalal nag seeni pay bu yawma alqiyama taxawee fa man zuhziha ani naar koo xam ne nii day muccal nañ ko ca sawara wa udxilal janna tabbal ko ca àddina ya faqad faaz ku mel noon day nekk na aji texe wa ma alxayaatu dunya illa mataa'ul gurur nekkul dund ak àdduna lu dul as mbànneex suy naxaate rek la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum dañ leen nattu ci seen alal yi ak seen bakkan yi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum da ngeen dégg moos jóge ca ña jotoon téere lu leen jiitu woon wa min alladhina ashraku ak ña nga xam ne dañ doon bokkaale seen boroom adan kathira ay lor yoo xam ne yu bari lay doon mi ngi noonu wa in tasbiru bu dee ne nag da ngeen a doon yoo xam ne da ngeen a muñ wa tattaqu ngeen ragal yàlla fa inna zalika min azmi al umur loolee day dana bokk ca la nga xam ne moo gën a dogu ci mbir ya mi ngi noonu mbokk julit euh, dafa am benn mbir boo xam ne ñaar juyoo wuñ ci mooy ñaar ñam xel bokk mooy bépp bakkan bis dana mës a ñëw da ngay dee loolu mbokk yàlla moo ko dogal ci mbooleem ña nga xam ne ñooy nekk ci àdduna nit mucc ca jinn mucc ca malaaka mucc ca képp koo xam ne nekk nga ci dundug àdduna da nga dee wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram kenn rek mooy alxayu lazi la yamut muy suñu borom jalla waala amul ku ko ñaareel allahuma lu dul nag nit ñi bëri dañuy jàpp ba suñ diw làqoog ba suñ diw nangam ak pour ñoom faatuwul am na sax ñu bind ne dee gi yàlla tëraloon ci nit ñi moom yàlla teggale ko ko du dee waaye nag mbokk ñun suñ téere borom la ñuy gëm li ñuy gëm daal mooy jibriloo mikaayiloo xatta malakul mawt bi rayaate ñépp dañuy dee kullu nafsin zaiqatul mawt waaw ñu ngi noonu yàlla rek mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne seen pay ñi ngi leen koy fay allaxira mbokk nga la waaye xam leen ne àdduna du kërug pay àdduna kënu kërug buuñaa tuuti la rek yéeféer bi fi yàlla mbugal loolee du dara du dara par rapport ak la koy xaar allaxira seen pay dëgg dëgg dëgg dëgg pay yéeféer la mu wàccoon xawma nuux xawma huut xawma saalix wàcc ko ci mboolem yéeféer loolee du dara moo tax suñu boroom mu ne ali firaw naa ngi noonu annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya wa yowma taqumu sa adxilu ali firawna ashad al azab firawna yàlla labal na ko ci àdduna mbugal na ko waaye nee na biir barzaq ña ngi koy gaaral sawara guddeeg bëccëg waaye mbugal dëgg-dëgg bu màgg ba ña ngi ko tey dugal sawar yowm alqiyama naka noonu it ab julit julit yàlla mën na ko dundal ci àdduna may ko xayaatan tayiba dund gu dal dund gu tey alal ji doom yi nangam waaye loolu du ko nekkul dara dara dara par rapport ak la ngay xaar yowm alqiyama day gis ku mel ne ibrahima alayhi salaam borom bi ne wa aataynaahu ajruhu fi dunya wa innahu fi laxirati li min alsalihin joxoon naa ko payam ci àdduna waaye loolu mbokk du dara buñaa su ndaw rek la looloo tax borom xam-xam yi di wax ne li nga xam ne mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam xadis boo xam ne muslim soloo na ko mooy addunia sijnul mumin wa jannatul kafir loolee am na ñuy wax ne ku ñuy wax abdourahman ibnu jawzi nekkoon na benn borom xam-xam bu mag bu ñu xam boole que encore nekkoon la nga xam ne alqaadi la dafa ramb benn juif juif baa ngi nekk sonn lool di defar ay diw yooyu takk rip mu romb ko ak la ko siq ci ay garde ak ay yu demaloon mu ne ko waaw yow kaay mu ne bëggoon naa laa laaj mu ne ko looy laaj mu ne ko waaw damaa dégg yéen ngeen ne seen yonent nee na adduna kaso julit la addina yéeféer la mu ne ko waaw waaw mu ne ko waaw yow xoolal yéen ne ngeen man yéeféer la xoolal li may dund yow julit nga xoolal xéewal gi nga nekke mu ne ko waaw waaw gis nga xéewal gi ma nekk yépp bis bu ma demee àjjana lii kaso lay doon ci man su ma ko xalaatee damaa nekkoon ci kaso te wallahi mi ngi noonu ku dem àjjana da ngay xam ne boo nekkoon pale yi àdduna yépp moo man ko da nga yëg ne ci kaso nga nekkoon waaye mu ne ko yow gis nga coono bii nga jàpp nii bis boo demee sawara da ngay xam ne lii àjjana la ci yow gis ngeen kon mbokk pay dëgg amul ci àdduna àdduna kërug nattu la waaye pay ngay dëgg ma ngay xaar ci àllaaxira innama tuwaffan ujurukum yawma alqiyama yawma alqiyama nag bu ñëwee texee gafa jëkk mooy yàlla musal la ci sawara fa man zuhziha ani naar zuhziha mooy ku ñu jañ puus la moo tax baat bi moom booy déglu arab sax xam ne baatu effort la zuhziha loolu moo tax dañ ne mbokk sawara pour mucc ci da ngay xeex ak sa bakkan mi ngi noonu mooy fa man fa man wa naha nafsa anil hawa nu mu ko waxee fa ma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa mooy fokk nga xeex ak sa bak sa bànneexu bakkan ngir mën a mucc ci sawara zuhziha anil naar borom bi loolu mooy njëlbéenu pexe njëlbéenu texe gannaaw ba nañu tàbbala aljanna te it xamal ne àllaaxira ñaari kër doo nga fa am amul bu ko ñetteel ñaari kër la am na benn station bu tudd araf loolu intermédiaire rek la waaye bu attee jeexee ñaari kër a fay nekk waa sawara ak waa aljanna borom bi nag mu ne dund ak àdduna gi ngeen di dund nekkul lu dul bànneex suy naxaate ba ko àdduna day naxaate bala nga ko xam rek tey di yàlla wax président de la république soo ko fekkoon fu muy sukuraate nga xam ne àdduna moo mën a naxaate artiste bi gën a rëy bu ñëwee xale yu yuuxu di say ci kawam tey boo ko fekkoon fu muy sukuraate le milliardaire bi moom bateau yeeg avion yeeg yëpp tey foo ko fekkoon fu muy sukuraate gis ngeen su ko defee léegi dee na c'est fini koor bi la ñuy wax ana alal ja teqalikoo na ak moom fu mu jëm ci bàmmeel fu mu jëm tasaaroo nekk ay ay sax kon àdduna ngi noonu mbokk day naxaate looloo tax ba suñu borom ne fala taxurannakum alxayatu dunia wala yaxurannakum billahi alxarur fexe leen ba adduna bu mu leen nax ci yàlla nan la la adduna di nax ci yàlla topp adduna ba jënd ko merum yàlla bu la ko dara jaral bu la ko alal jaral bu la ko jigéen jaral bu la ko falu président jaral bu la ko lenn ci adduna jaral ngay dem di wax wala di jëf loo xam ne da nga koy jur da lay jural merum yàlla ci jëm ci adduna taxurannakum alxayatu dunia mataun xurur da lay wor mi ngi noonu da lay wor su ko defee yow bu amee xel yow da nga koy far wor noo koy waree mooy def ko say loxo bañ ko def sa xol loo ca mën a am nga sàkku ci ngërëmal yàlla mu bañ laa itteel sa diggante sa jaamu yàlla borom boobu nag ne dinaa leen nattu ci seen alal yi nattu ci alal ñaar la yàlla jox la alal xëpp la alal di xool ba xam naka ngay jëfe am na ñu bari alal ja yàlla xëpp ci seen kaw moo leen alak yàlla dana leen nattu ci seen alal mooy nga am alal ba pare yàlla xëy nangu ko tool la yàlla yàq ko oto yàlla jël ko kër yàlla taal ko ila axiri jël seen jël seen alal gannaaw ba ci seen bakkan yi dinaa leen ci nattu ci feebar yi ci dee yi ci problème yi kee ma nga xëy nekk ab jeune amul fu mu liggéeyee jàng na bay bëgg a dee amul dara kee ma ngay wër soxna mënul fexe ba soxna kee am na soxna mënul fexe ba am doom kee ma nga nekk ci tumuranke kee ma nga nekk ci kaso kee mi ngi nekk yooyu yëpp mbokk nattalo yuy bawoo ci borom bi jalla wa ala borom bi dolli ci it ne yéen jullit ñi da ngeen dégg ay lor yoo xam ne nii lor yu kawee la ay lor yu wax yu jóge ci ahlul kitaab ak mushrikuuna yi yoo bari ci ñu leen koy wax tuumaal leen ci seen diini jiiñ leen lu nekk ci loo xam ni def leen ko waaye nag borom bi mu ne cay fa in tas wa in tasbiru su ngeen muñee ba malgré fitna yi ngeen dund ngeen def ndigalu yàlla yi muñ bàyyi tere yàlla yi muñ dogal yàlla yi ba pare ragal yàlla jalla wa ala ban koo bokkaale dara topp ay ndigalam bàyyi ay tereem suñu borom mu ne lii day ci li gën a dogu ci mbir yi ca la bokk min azmil umur loolu muy wane it ne mbokk diine kan moo ko mën a dund mboroom dogu yambar du duggul isla du dundul islam il faut nga am détermination am dëgër am fit dooga mën a dund diine yàlla ji rawatina ci jamono yu jaxasoo yi ñuy dund yal na yàlla jàppaleñ ci mi ngi noonu Cheikh Ousmane وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يف ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa iz akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitab fàttalikul ba yàlla di jël kolle rek ña nga xam ni ñoo jotoon téere ba misaq mooy al ahdu bu ñuy feddali latunabbi latubayyinan latubayyinunnahu linnas ne téere bii day da ngeen ko leeralal ñeel nit ñi wala taktumuuna te bu leen ko te du ngeen ko nëbb fa nabazuuhu waraa zuhurihim ñu jël téere ba sànni ko ca gannaaw seen gannaaw ya washtaraw bihi samanan qalila ñu daal di koy jënde njëggu néew fa bisa ma yashtaruun aka bon waay la nga xam ne moom lañ jënd laa taxsabanna alladina yafraxuuna bima ataw bul jàpp mukk ne ñi nga xam ne dañuy bége ci la nga xam ne ñu ngi koy dikke wa yuhibbuuna an yuhmadu bima lam yafalu ba pare bëgg ñu leen di gërëm ci loo xam ne jëfuñu ko fala taxsabannahum bi mafazatin min al azab bu leen jortu mukk ne ñoom daañ mën a mucc ca mbugal ma wala hum azabun alim te dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar lay doon walillahi mulku samawati wal ard ñeel na yàlla moomeeluk asamaan yi ak suuf wallahu ala kulli shay'in qadir te yàlla day lépp mbir mooy ka nga xam ne moo ci am kattan mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee na daa jëloon kulle rek ahlul kitaab ne lii day leeralal leen ko nit ñi ca ngalawaay bu leen ko nëbb ca loolu itamit mbokk jullit suñu borom yàlla la nga xamee ne mooy ay yonentam musul defal benn yonent mu sax ba faw wa ma ja'alna li rasulin min qablika al xuld yonent musul sax ba faw kon yonent yi dañ daan ñëw jottali sant ña leen wóoroon ñu jottali leen comme la isa ibn maryam waxoon man ansaari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansaarullah ñooñu nga xam ne nag ñoo amoon xam-xamu yonente ba di dund gannaaw yonente ba ñoo ko war a jàngal génération yi ca topp ñooñu jàngale ko jàngale ko ba tey jii bu ngeen xoolee su diggante ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam quatorze siècle dox na fi kon jël leen ko ngeen leeral ko nit ñi ca bañ koo nëbb waaye borom bi nee na waxuma leeralu luñ ko waaye dañ koo sànni fuñ ko sànni ci seen gannaaw doomu aadama bi la nga yor sànni ko sa kanam sax xëy na mën nga koo jàppaat waaye la nga sànni sa gannaaw moom ñàkkal nga ko fayda ca dootoo ko gisati gis ngeen loolu itamit mbokk mooy téere boobee sànni gañ ko sànni seen gannaaw du ne tey jëmmi téere bi lañ jël sànni ko waaye téere ba dañ ko daan jël di ko jànge nam leen neexe di ko tafsire nam leen neexe lu yàlla wax ne jaar leen ndeyjoor ñu ne déedéet yàlla nee na ngeen jaar càmmooñ te lay dëppoog seen bànneexu bakkan yuharrifuuna al kalima an mawaadi'ihi kaddu yàlla yépp lañ jël soppi ko di ko waxee nam leen neexe loolee lu mu leen jural ñu am ca samanan qalila nit ñi yëkkati leen fonk leen jël seen alal jox leen jàpp ne ñii kat ñooy dox seen digganteeg yàlla loolu mooy am ba suñu jamonoy tey ak ñaata nit lañuy gis ñoo xam ne amuñu benn cër ci diine ji xamuñu alquran xamuñu hadis xamuñu tawxid xamuñu dara mbooloo mu bëree bëri riir jëm ci ñoom di dajale ay millions di leen jox ñuy liggéey seen i taax di defar yëkkati seen kat-kat dajale seen i jongoma mbokk loolu sa mën nañu qalila la njëggu néew la su dee da nga xam nëbb njëggu néew la suñu borom mu ne qul mataau dunya qalil dundug àdduna li fi nekk ay xéewal lu tuuti la aka bon la nga xam ne moom lañ jënd ca mbokk bu ñu xamoon ne leeral diine yàlla joojee àddina la leen di jural te nga fexe woon ba benn jaamu yàlla jube ci sa loxo moo gën àdduna ak li ci biiram wallaay buñ ko xamoon duñ ko jëndee njëg matum àdduna bu ndaw bi borom bi nag ne boolu jàpp mukk ñi nga xam ne dañuy béggee la nga xam ne ñu ngi koy dikke ci lu bon yow def lu bon réeral jaami yàlla yi ba pare kontaan ci loolu bëgg nag nit ñi di la tagge ci loo xam ne defoo ko te mooy nit ñi jàpp ne yow yaa ngi wooteel yàlla yaa fi nekkal yàlla te nekk loo fi lu dul sa bànneexu bakkan ak sa bànneexu njaboot sunu borom mu ne ñii day bu leen jàpp daañ mucc ca mbugal yi loolee mbokk muy safaanu julit kan muy julit julit mooy ka nekk ca la neex yàlla di def la neex yàlla boole ko tiitaange ba yàlla nangu na ko wala nanguwu ko comme na ko borom bi subhanahu wa taala wax walazina ataw ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun mooy ñi nga xam ne dañuy def la yàlla gërëm teewul seen xol a ngi tiit ne ñoom ci yàlla la ñuy dellu mbaa lii sell na wala sellul loolee mbokk yonent bi alei salaam lam ko firi mooy ña doon jaamu yàlla ba pare di ragal ba yàlla nangu na wala nanguwul borom bi nag ne ñu mel noonu day boolu joortu ne dund nañu téeméeri ato lu ne dajale nañ ko ci alalam bul joortu mukk ne dañ mucc ci mbugal mi te dana leen joon mbugal mu tar suñu borom yàlla nag feddi li ne xam leen ne yàlla mooy moom moomeelu asamaan yi ak suuf mbokk jullit day gëm ne yow ak keneen ku dul yow moomee moomeelu yàlla ngeen li nga moom ak la sa moroom moom moomeelu yàlla la yàlla subhanahu wa taala dala cee nattu def la ci benn gérant ëllëgi ki si biir lépp loo xam ne nii féetale woon na la ko dana la ko laaj naka nga jëfewul ak moom loolu moo tax ba ab jullit fu mu toll xelam day bàyyi xel inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun moomeelug yàlla lañu ci yàlla la ñuy dellu te muy xam ne lu mu mën a doon ci xéewal yàlla mi ngi la ciy nattu ndax da ngay muñ wala da ngay doon koo xam ne ki weddi nga borom boobu nag subhanahu wa taala ne xam leen ne wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla borom bi jalla wa ala mooy ki nga xam ne lépp am na ca kattan mbokk kii rek mooy yàlla looloo tax ba jullit da nga koy doyloo heure boo demee ba naan yàlla ak moom moom xanaa li ngay soxla yàlla da koo mënut te yàlla nee na innahu ala kulli shay'in qadir yow lépp lu la jaaxal lépp loo yaakaar lépp loo ragal adduna ak alaxira ci loxo kenn la nekk muy borom bi jalla wa ala mi nga xam ne innahu ala kulli shay'in qadir looloo tax ba julit day doyloo boroomam jalla wa ala day doyloo boroomam ci ay yaakaaram ci toroxloom ci lépp bañ koo bokkaaleeg dara moo tax ba mu bokk ci zikri yi gën a màgg ci zikri yi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير yeneen ci bari sam ne ki xëy wax ko téeméeri yoon bi su keroog amul kenn ku lay gën a rafet jëf xanaa koo xam ne daa jëf lu ëpp la nga xam ne ni moom nga jëf waaye nag mbokk la lay yeggale ca pay ga it mooy ba ngay wax wax ja da nga boole gëm ko ne yàlla rek la ñu war a jaam amul kenn kon koy bokkaaleel lépp lu mën a doon moo ko moom mboole mi xéewal ak cant ci moom moo ko moom ca mooy ki am kattan ci lépp lu mën a doon yal na yàlla wërsëgal ñu ñu gëm ko yàlla wërsëgal ñu ñu taxaw ca la koy sellal wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mu ne ndax bépp bakkan bu mas dund dana mas dee ca suñu boroom bi ka iblis ñaanee na ko may ma ma dund ba bisu penc daf na ko may naa la ko déet yàlla mayu ko lool de suñu borom daf na ko innaka min al munzarin ila yawmi waqtil maalum mooy da nga dund ba ci bis bu ñu xam bis bu ñu xam mooy bis bu àddunay tukki keroog la iblis di dee tant que doomu aadama yaa ngi ci kaw suuf yàlla dana bàyyi iblis kum ca mën a sànq sànq ko yàlla na yàlla musal ñu ci suñu demee nag ba doomu aadama yi mujj faatu keroog la iblis ànd ak ñoom di faatu waaye comme ni ma la ko waxee xatta al malakul muqarrabun dañuy faatu mi nga noonu gaa yi ngi nekk di mas yonente bi alei salatu wasalaam ci xadis boo xam ne nii xadisu suur borom xam-xam yu bëri wéral nañ ko ñu ne malakul mawt su dee rey na waa asamaan ak waa suuf borom bi dana na ko waaw malakul mawt mi ngi noonu waaw kan moo des mu naa ñi des day mooy jibril ak mikail ak xamalatul arsh ñi ngeen xam ne ñoo yenu arsh mu ne ko ne jibril de ak mikael ak ahmadu tolarch malakul mawt jël seeni ruux ñu daal di faatu gannaaw mu ne ko malakul mawt ku des mu ne ko ah maa yàlla yow mi nga xam ne doo dee ak sa bakkan bii mu ne ko ah dama dogaloon na nag yépp jaam dañuy faatu su ko defee malakul mawt moom yàlla moo koy faat gis ngeen ala kulli xaal cheytaane day dee balaa bis penc taxaw wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah xanaa bismillah waaw ki doon lekk alay mbooloo mu dem ba tuub alal heure boo ko jëlee lekk ko ci koo xam da ngay dem nga delloo ko alalam wala nga ñaan yàlla mu jéggal ko su dee ne yow jàpp nga ne loolu xamoo leen su boobaa alal jooje nga jël ko sarxe ko daa di ñaan yàlla lii day say jaam laa ko jële woon ci tooñ leen e yàlla yool ba yàlla na nga leen ko jox loolee mooy la nga xam ne mooy mbir ba soo amul loo xam ne nit mat na lu toll la nga jëloo nit loo man ci bëril ay sarax nga di ko def ànd ak tuub gu sell tuub gu sell googee bu ko yàlla xamee sa biir xol yowmal qiyaama incha allah yàlla mooy féetaloo féetewoo fayal la àq ya nga yoroo doon jaam ya wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam suñu borom dane yowmal qiyaama doomu aadama bu nekk dana xam la nga xam ne jiitaloon na ko ca la nga xam ne def na ko ak la nga xam ne waroon na koo def yépp te defu ko ndax doomu aadama bi ñaar moo ko siq yaa ngi def loo xam ne nii waroo ko woon a def wala war nga ko def ak la nga xam ne da nga ko waroon a def te defuloo ko bu ëllëgee lépp dafa am jugement boo xamee ne ni moo lay yóbbu ci loolu bokk na ci loolu sax question bi ma tiim fii day wax ni dañuy gis ñu bëri ñoo xam ne dañuy sax ci seen liggéey ba waxtu yi bu passé wul it daanaka la ca moxtaar yëpp passé mais ñoom boo waxee ñu liggéey jaamu yàlla jaamu yàlla la mu ne ndax liggéey jaamu yàlla la ak it lan mooy tegtal ci loolu ñu def ala kulli xaal moo ko liggéey jaamu yàlla la su dee ne kay liggéey ba da nga caa jublu muy liggéey bu lislaam daganal nga jublu ca sàkk loo xam ne nii da nga cay téye ba doo dem di ñaan ak agressé loolu jaamu yàlla la waaye nag jaamu yàlla googee dafa am priorité ci biir jaamu yàlla yi ndax gaa yi jihaad fi sabilillah du jaamu yàlla ah kay ndax ñi nekk toolu jihaad yàlla ne wax na leen jihaad leen bu jihaad pare ngeen doog a julli waaw wallahi mooy fu julli jotee suñu borom mu ne heure bu julli jotee ni ngeen julli fa rukbaanan ah fa rijaalan aw rukbaanan mi ngi noonu noonu ko- ko yàlla waxeeti fa rija fa rukbaanan fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan heure bu ngeen demee ba ragal waxtu yu romb ca noonu yéen a ngi xeex ak ñoom xeex leen ci kaw fas yi xeex leen taxaw di di xeex wa sahabatul kiram daanañ xeex xeex yoo xam ne dañuy gis sa jant baa ngay waaj a so ku nekk na allahu akbar kabbar di xeex di dóorante ay jaasi radiallahu anhu ala kulli xaal mbokk jurit priorité bi ñuy jëfal yàlla ci kaw suuf mooy julli heure bu ñu julli jotee leneen lu mu mën a doon dañ ko war a bàyyi looloo tax ñu yoonal li bilal doon def léegi mooy nodd julli gi danaan e yéen menuisier yi ay yéen maçon yi ay yéen ñiy fóot ay yéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci liggéey kaay leen ngeen julli loolu muy mbir bi su ko defee daal bépp julli bépp liggéey boo xam ne dox na sa digganteeg julli liggéey boobu du jaamu yàlla alkaange la ñeel la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah heure bu bilal doon noddu day wax sa la nga xam ne mooy salaatul jamia mooy yégle ne nit ñi kay leen ñu julli julli goo xam ne ni julli dajale nit ñi la nekkul ak nodd gi nga xam ne dafay nodd spécial comme kay leen ay yàlla sala gis ngeen su ngeen dé déglu yomal xi fële ci kaaba ga tarawih yi da ngay gis noddkat bi jóg daa di ne salaatul qiyam rahimahu rahimakumullah jóg leen ñi ngi tàmbali naafile yi kon azan mooy lépp looy yégle gis ngeen suñu borom mu ne azanun min allah azan mooy nodd mooy lépp koo yéege kon bu ne noddal bilal mooy bilal kaay leen su ko defee bilal allahu akbar kaay leen ngeen ñëw ci dajee bi nga xam ne mooy dajee jamia bi bu dee ne kay waxtu wa nekkul woon waxtu julli mi ngi noonu mbokk jullit wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñu mujj ci mbokk bi rek ñu mujj ci mbokk bi incha allah waaw koo xam ne day koo xam ne day day day day tukki wala day tourné ah waaw xam nga dafa am tukki ak koo xam ne day def ay étape bu day nekk tukki dem ci benn dëkk nga xam ne dëkk bi du fa def lépp ñeenti fan borom xam-xam yi dëppoo nañ ne mën na wàññi ay dullem ba baa mu fay jóge su tukkee ba naree ëpp ñeenti fan la ëpp ci ñoom dañ ne amatul droit wàññi julli dafa war a matal julleen mu des nag koo xam ne tukkeem ay étape la waa ji ab livreur la léeg-léeg mu dem fanaan Kaolack ëllëg ma nga Tamba ëllëg ma nga Kédougou ëllëg ma nga Nangam ku mel noonu bépp dëkk bu mu def étape ca na mu faa def ñeenti fan tukki boobu même bu matoon un mois it te noonu la koy doxee mën nay wàññi ay julleem ba baa muy jëli suwaat këram mi ngi noonu ndax amul fenn foo xam ne dem na fa yéena faa sax loo xam ne ni dafa ëpp ñeenti fan mi ngi noonu wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain